Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, nous ñu Sénégal si anam yo mieux naturelle. naturel oui bi des day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi oh. oh dina yokk seen kàttan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag vito soo pour fête bu mënti doon te baax lool si ya gune ak mag lépp nak nekk si emballage civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison yeah. Uh huh. Yeah. Nyangongi khair, nyangongi saga, nene dade, dinyo diwaga, ande kikens, koko idaya, nyangongi fe Papa mlaja na nyanko, eo khana kiso nyanko, yobo khamon nyanko, do laje kamoy nyanko. Papa mlaja na nyanko, eo khana toog ñi ko mag lay kekkantoo ñànku bëggu jàng booy rangu soot ñi nee nañ malak meer ku ne lay lami sool ñànku ñànku ñànku di luube lagalu loolu du doole nekk ci di tooñ lekk ànd ndaa yaa di yoole boo koy seet fii boor be jaroon na nii léegi fël fe taxawalu du togalé su papam di wax ak du ko falé ñànku ben kilote lay sol ben chemise sans bouton ak dënn bu ñuul tànku neen fu mu toll ak jall bi ci souf la defa mu wax waxu nit ba nga foog ni ki moko tay xel bi day dem ak dik, no noo dal daal léegi day woy falama leen jaay falama falama leen jaay falama leen jaay légui day falama jaay falama falama leen na gaay ji ñu bakk yàlla di nga xam ne gaay ji di nga lekk lekk yow mënoon noppi eh eh eh lu mu nañu di ji dama ne fekk ku boot bukk xaaj boobu la kuy bukki bi dalay sosal aw na ngeen def wude ci loo ne père gede yow man sama julu woon sama julu woon waaw wala sim duma ñëw fe man man man ma wala jur da nga am fayda ñaan ma and ñoo xam su ma naloon jul su ma naloon jul ñoom su fekkoon ñoom ñoo ma naloon jul yow del noppi waaw papa laa eh, eh. wax waaw nit ñi eh fii nekkuñu fi pour di fi nettali ay histoire soo ma naroon a juróom doo dégg ko nekk ndax journal bu nopp. Hmm. papa Guède yow nag ci suba danoo ñëw ci yow wax ak yow njëkk ak teraanga yow mënoo bàkku ki kii nga xam ne wérul. ah ba mën naa yëg kër ga. toogal xam ngeen lan la du ngeen ay xale ay magum jëmu ngeen kenn ku ci nekk nag mën naa ñëw ci yow ma masla waaye bu ñu toogee dañuy waxtaan nag parce que nekkatuñu ay dëkkandoo mais ay famille lañ. amna lo xamni ñun ñi ñoko waron def ñun xalé ngeen taaj ñu mais mag yu tol na yeen ah ngeen di def sen genre affaire pour lan dama bëgg nak xolal soxla wuñu explication. fer nga tak takk ko buum. noppil noppil ya nga dool rek ñank noppil. da nga wara a lan la. man may sa chama may teggal xartuma ay jaaykatu buum. Euh. ala ñoo xam ala ya xa may sa jaaykatu wala bàyyi ngoo ñu leen tëggan si jaay si jaayam buum bi. <laughs> Papa Guèye xam nga ci suba waxante wo ak ñun li amna lo xamne mom rafetul duñ jëlé nit nak ba kërëm ñëw ba fi ngay def sey bu doon loolu la kon tey ñu leena bay ngeen continuer xolal ngay def ni ah ba eh bëttuma bëttuma ba di joy de man doomu gor la de bu ma ndaree joy ndax ndax ndax borom mor sey eh, awa xam ngeen awa eh. respecté naa leen ba ba ngeen ngeen wooma ma genn eh, waye rewande weesuwul da basan gi nga xamante ne moom laa am di jullee di jëfe sama lépp mu teg si daal am yéen. dugal duus ak yëpp si la koy dugal. xanaa lii da nga koo gisul. kii daal la mi ne moom la judd waale bi nga xam ne bu jënd yàlla tey ah. na daal la mi ngeen koy gis kii mbaraa kiis la sol mënoon na kaa timi fee yéegal ay tànk neenam. Euh, bu ngeen juboo woon li ngay seetlu nii yëpp du ngeen ko seet doo ko seet ndax yàgg nañoo dund lu gën a naa ñëw di jël ay dàllam di ko teg ci basak mi mais yow kii dund la kii dund la ñam eh. kii naw law la doo muuma yow kii pakk wala allo bi eh, eh, dof bi yow laay waxal de dof bi dof bi dalal nga teey te xam ne coow lu mu gudd gudd gudd gudd moo pare sabaay yi xam nañ ko xam nañ lépp ah. ñun dama ñu gël gànnaaw waa xam nañ lu gëlëm di jàll foofu lu ko teree am jabar munaas tey topp ñu kaar xam nga lan laa bëgg damaa bëgg ngeen juboo ngeen nekk ci jàmm yéen bu dul dara tànk jàmm yoo ma kon man lan lan la bu ñëwee sama kër au moins ba mu ñëwee mu laajte ma na maay borom kër gi laajte na la ku na lay laajte ku juboo yàlla ku juboo na lay laajte ku juboo na lay laajte xam ne mënu ñoo bàyyante rek da nga xam ne mënu ñoo bàyyante rek natt bi nu séq bi moom dañ foo jaar ma teggi sama loxo moom ah, kon nga wàññi sa tàngu xol bi déedéet déedéet ba nga wàññi sa man fu demee ba waa kon di sos natt ñu ne ma dañ may bindal loxo a loxo dama leen déedéet bu leen yàq sama diggante dukku rek def leen ko benn loxo ngeen mm. bind si gédé dukku buñ teggee ñu xam ne gédé dukkoo teg ku nekk jël sa xaaju loxo yóbbu coow lu mës sa am ci àdduna mosu na di woo sama kër sa keur lay ñew man ma ñëw ñu jubóo eh eh eh dernière ñi la lañ. eh eh eh eh eh, eh, eh kon eh eh rek di ngeen eh ki du eh di ngeen eh kon na leen rek. xalé yi nga wara eh eh ñu mi ngi nga wara eh moytu ñu dugg suñu eh xam nga man man luma eh am sedd na la ci lool li mba eh na ma eh bi man dara jox li man dara jox dama ne ko eh eh eh la mo tax nga eh wax lool yi mu eh xaj ñu eh ñoroon jox eh eh li mbaw buñ eh eh yow ñu xulo ma ak lool li mbaw xulo wuñu eh eh eh eh la man eh ma lay eh eh nga ko indi Record the lecture from the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 809 75. Notre site internet wwwcefas du sénégalcom jox ma ko sama xol sedd ma baalu ñu and mel nun meloon. man sant xalé yi bu baax xalé yi ma ngi doog xam ne am nañ njëriñ. waaw awa awa ba munas mii. waaw seen koor nangu na. kat yi mu Baara Ndiaye dama ko wo nee ko maag du ko rek suñu kër ñoo taqaloo ni mu ne ma seen muurum man ma leen kay jox. ah Mor yóbbu su ma man fu ma tudd fu ma woote téléphone dama naan maag du kuré ànd. moom it noonu la koy defee. ndax bañ demee këram daa jooy bay bëgg a dee. yow it bañ ñëwee di la laaj da ngaa jooy bay bëgg a dee. kam ma doon jooy awa ba kam ma doon jooy. nga jooyee moom noonu la jooyee bu la wax loolu waay. yow ku eh. ma xuloo mu waayoo nga jàmm am na waaye ñànk mi nga yemale ko. man bu nekkee heure bu ma jotee ak yow mu wane position am te man man lañ ko bàyyeele. looloo dinaa ko de. Eh, eh, eh, yow amul looy ñeenti. amul looy ñeenti ci loolu yow. déglu déglu kii soo sama baay ma jël sa caamaas muy liggéey wax fa def ko mu nekk sama baay. fecc kat boobu fecc kat ngeen sama baay kooku nga xam ne lu mu am sa avenir fecc rek nekk di lay tël tël ah boo jëlee ma Pape soo sax def ko muy sa baay moo tax moo tax kii mooy sa baay kii laa baay le ma nday la wan ak nday jaay sabok kan nday sabok maam jaay sabok waaw mu ñu nday la moomu ko ko baay la ma kii man laa fi eh, eh, eh, bàyyi la ngay def ndayale ak bàyyi la bokkul kii mën na jël ci yow cëru bàyyi la nday maam Ndiaye Savon jël ci yow cëru ndayale ah, aw ba benn la aw ba ci loxo bàyyi la da ngay waa jikko mais bul taxaw foofu foofu du arrêt man li ma intéressé léegi léegi nangu naa benn affaire ñànk ñànk bi génn naa ci moom. man taxaw rek taxaw rek. man góor laa taxaw rek parce que man nii ban jotee ma ak yow. yàlla xam na ni. jël ko naa appartement bu deux cent cinquante mille ba nar a tox. Hmm. jël ko ba noppi. juróom fukki junni. bi <laughs> ma demee ma xam ne ah. ah, ah, xam nga ni mënoo fay juróom fukki junni. xuloo mooy def loolu nga def loolu mënul pare coolu te sa sama nit nga. waaye ñu ma maa yow nga ne bu ñu xuloo suñu xuloo du yàgg. daa tax ngay ngay ngay waxaale appartement boo xam mu tax mënoo koo fay. di saaf ñànk boo gisee mu positionné wu ni lu ma ko wax si yow moo tax ndax nettali naa ko loo xamante ni baay bu ko nettalee doomam day day solle baayam. xam ngeen lan la nag. mu jóg jox ma loxo rek jugoo leen nag jugoo leen mu jeex na man damaa sonn eh, jugal nga baal sa baay dukkure ak. eh jugal yow loo doon wax yëpp mer moo tax man doon wax loolu si sa fa ay dukkure mi. boo ngoon ka lay tegal ndogu yàlla na dee du démb gis nga li nga ndogoo sa gëmal xaj na sa doomu ndey la koy wax li soo nekk ak sa doomu ndey mu feebar da nga koy jéem a dimbal nga jëm koo faj moo gën pas du ko bàyyi ma avant eh, tax taxawal gërë eh, gërë dimbali ma dimbali ma may ma lii yow kii sojam bi may ma may ma ban feebar la am maa ko wax da ngaa soj man <laughs> maa ko waxoon du soj bi de ak kay du sa gide du sa gide ah wuy ma yaa xam sama vie privée yow rek yaa xam sama vie privée lan moo ma daal man lan ngeen xam ah, ñoo ngi defar boobu ba tey duñu xool fii li feebar bi faj xool buñ lay waxee xool leen la ngeen xool def ba jubóole leen bu ñu xamee feebar bi mënuñu ko faj soj du kuré nee ma ah, dama doon dama soj booy bi muy insisté du soj booy sama nday jasam kaay ma gis la kaay. nga ah mën a duul. <laughs> du dëgg ah. xoolal bu nekkee ni même am na wala amul aw ba wala menace mi a ba nañu fekk ma dugg ci biir néeg bi eh, léegi. Eh, eh, ñu jëflante di une heure de temps. yow une la ko may père du kuré rus naa la nag de. yow amoo kon nga joxal exemple amoo ci koo koy jël ku dul man. sa buum bi nga mel ni wëtiir. na njëkk tey na mujj tey. yaa <laughs> may dégg. da ma woo fii pour jéem a mel ni ku tànn ceeb. wala da ngeen ma woo pour pour décrire ma wala da ngeen di woo di xool pour benn kii naa ma da ngaa yoom kii naan yaay kilifa jëlal dernière décision ma xam fu may taxawee. moom xam ne nga bàyyi buum. Eh, ah, awa mënu leen maa woo si jubale maag du crime mi ba pare di xuloo fii. man moo tax mu may woo pour man lay maa fi tudd soj ngeen tudd tuba yëm. ah mais ku ko tudd ñaan ko ko tudd bu yooyomee waroon leen ka wax ah. ñun de. pare naa ci xoolal jubóowuma man. Eh, dugg de bu ñu def loolu waaye suñu énergie bi nag. eh waa dugg jàngoor boo ko wax lu faju de. Eh, bés bu ma ñëwaatee fii dee ma woowee muus. kon kii dëgg la kaa ma wax la nag kaa ma wax la Eh, ngaa eh bu yoom. ki kan la eh, muus bu yoom. Kan xaju fi de. ko la kan muus bu yoom. bu lay jooy. dugg tegal sa mbalaa kii fi nga sol côté dem. gulub. <laughs> mi ngi jooy Joy. daa jëre jooy. boo feebaree doon nit da ngaa feebar. ñànkuli de. yaa ngi kii àq li baaxul de. yow ma bàyyi kenn du ko tudd yow. dugg noppi ma eh, eh, eh, wuy ma li ngeen def day ndur kookali mbaa dem dugg dugg dugg am naa pexe am naa pexe ah. de du xaawee wuy ma eh defal nànk defal nànk kaay ma yóbbal si menu say borom taw fii. yóbbu ko desab. yow sa doo tees laa mel yow yaa yóbbul kii jaxaj. yaa wax ko ni yóbbu ko ndul yóbbu. jugal ma yóbbal seen menu say borom am naa góor ci kan Uh-huh. Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyup, yep, ñu Sénégal c'est un la sel naturel puy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh. dina yok seen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel vito excellent pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mat lepp nak nek ci emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito ju fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito ju le jus fait maison